asalaamualeykum sama mbokk sama xarit sama am di jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay ci seen cofeel ci seen ñaan ci seen bëgg bëggeel ci décision bi xam ni jël naa ko di démission altine bii maa ngi tamit gërëm président Ousmane Sonko ci discours bu mag bi mu def ci ndar ak ci kàddu yu rafet yu mu jël teg jëmale ko ci man dimanche bi di ñëw bés bu mag la ndax ci la ñuy tànn suñu ay député xam ngeen ni élection bu am solo la ci réewu Sénégal rawatina nag ci département Ndar looloo tax may woote képp ku yeewoo commune Ndar commune Gànnoom commune Fass commune Ndiébène Gandiol commune Paal ànd leen ngeen nekk benn bopp ngeen voteel Yewwi Askan Wi woteel sama jarbaat Abba Mbaye maa ngi leen di ñaax nag ndax Ndar dëkku gor la bu leen nangu mukk xaalis mbaa alal di soppi seen wot dimanche voteel leen Yewwi Askan Wi jërë ngeen jëf